Yo guys, it's your boy Maro. I'm back with another video. Please don't forget to si waxtaan. non xaaral ba mu ñaan ba pare. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. waxtaanu tey wi li ko waral nag mooy netaal wi ngeen jàkkaarloo. problème yu mel nii foog ñu am ñoo xam ne dañ koy waxtaanee nu mu amee. te bañ koo seeg. toog ngeen xëy fi benn suba yokku njëgi mburu waxuma ci. ay saay-saay nekk si nguur bi di sàcc xaalis si dëkk bi. waxuma ci. walantaan jot ngeen def seen yu bon di lëkkaloo waxuma ci. saaku maalo bi ak bidon yi diwlin bi mu ngi yokk baro mu ne. code face. baro yaa ngi noppi. ba réew bi dem na ba tollu foo nga xamante ne. ku xamul xaay doo day. ko amul lan doo day. <laughs> non. bay door loolu du ci mën a xam kersa. soo douze bi fa nekk. bakaw la douze ba ne. eh. expliqué nañu bi nu mu ndax fa xam waaju bëggoon a puub yorewu fa weccit ñu ne ko du puub. douze la la. douze marché la. xanaa waa ji moo amutoon dalasi bu mooy duggee. man génnee naa benn dërëm bi ma dese woon jox ko waa ji. waaw. mu dem fay ba di dugg. ndongo wi ñëwaat naan ko xanaa ndomba woon na wala ndomba tuub. dem ka ma lu si jar a laaj number one wala number two. mu ne daal du loolu xam nga price yi du benn. ndaxam booy dikka bi lépp a seer. waaye bu sobee yàlla day na moom du ci bokk. waaye Baye soo seetee essence tamit yokku na lu mu jotee day. dëkk boo xam ne amoo benn price control. tax na man mu commencé na mu yaay jame sax. Baye am na ñu nga xam pour moom jarut a def waxtaan. naa def waxtaan bu bugg a eh! bi kenn mënu fee dund. ndekki lu mat sax soo ko bëggee am foo nga génnee téeméeri dërëm. Emale leen ko ci marchandise yi bëgg fe yok day di sonnal nit ñi dëkk bi moom léegi neexatul fu muy neexé eh? so légui lan la gay wax ci yokkuteem day bi yokkuteeg lay moom ba ilaa yombi diin xel du ko masa mëna nangu su continuer ni nak ñun do lay lén rek lañ mëna def moy lan ku ci doxi sa yaram diis fi nga taxaw futteekul fulal sa yëf ba ko fa xëy na ñoom ñi amé industrie bi buñu génnee di dëgg day ci mbéd mi danañ bandi ñi jonkon ci jamm yalla yalla do li yërmande ci xol yi yok fi jàmm yaatal wërsëg yi alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh lii leen la lo ci waxtan bi tay please don't forget to subscribe like comment and share bye bye en eh, le monde parankuy <laughs> No. couille non